jaratu campagne bi door na kooku defe naa <coughs> euh, mandargal naa ko man parce que moo tax ma sol suma casquette nii bëgg sax le réalisateur nañu ko wanal askan bi bu baax parce que kii mooy parce que kii mooy parce que kii mooy jàmm ak njëriñ bu <laughs> président Amadou Ba nest pa pas voilà pourquoi ma sol casquette bi tey c'est parce que campagne bi commencé na mm-hmm. nest pa pas mm-hmm. euh, Adjara la question mooy euh, Euh, tàmbali bi euh, li nga xamante ni moom mooy euh, analyse bu ñu ci mën a def n'est-ce pas. Mm-hmm. commencé nañ tàmbali nañ comme niñ ko niñ ko bëggee woon n'est-ce pas def ko ci façon yi nga xamante ni nii en politique loolu moom la ñu soxla mooy lan mooy un grand rassemblement. ñun suñ côté def mobilisation euh, n'est-ce pas génne les couleurs euh, communiquer ak askan bi euh, pour que ñu xam fi ñu jëm fan la et lan moo tax ñu soxla baatu askan bi njëriñ bi lan la du leen lu dul fexe ba am majorité à l'Assemblée pour lan pas pour xeex pas pour xuloo pas pour yàqal pas pour bloquer mais juste pour comme ni ko le président Amadou Ba waxee fexe ba euh, am une assistante ci biir euh, une assistance euh, ci mhm. biir assemblée nationale bu ñuy permettre ñu mën di joyanti surtout une assistance boo xamante ni dinañu permettre le gouvernement bii fi nekk su fekkee indi na loo xamante ni njëriñu askan bi la ñu xam ne lii njëriñu askan bi la ñu ànd ci ak ñoom voté ko mais mais sans hésiter pourquoi parce que njëriñu askan bi la su fekkee dañ indi nag loo xam ne gis nañ ne baaxul ci askan bi voilà loolu mooy njëriñu euh, majorité bi nga xamante ni bu ko opposition amee dina ko mën a dox. bu dee lu baaxul biscuiterie ba bu fekkee lu baaxul la. Mhm. dinañ mën a wax ak le gouvernement mu am équilibre n'est-ce pas contre pouvoir taxaw joyanti ko su fekkee ne nii nag par contre dañoo indiwul dara. te ñun ñu am une idée bu baax ci askan bi ñu mën ko proposer loolu le président Amadou Ba wax biscuteurs yi dem nañ fa def nañ suñu ouverture de campagne euh, ci intercoalition bi parce que Ajara xam nga man maa ngi ci jàmm ak njëriñ bu président Amadou Ba mais dañu bokk ci intercoalition bi je faisais partie d'ailleurs ci la liste bu départementale bu président Amadou Ba j'étais à la troisième place bu liste boobu noonu mais on a retiré la liste juste ñu ànd ñun ñëpp mooy li nga xam ne nii moom mooy intérêt askan bi aujourd'hui mais surtout que le président Amadou Ba dafa joxe woon kàddoom foofa noonu waxoon leen ne dañuy ànd ensemble d'accord donc ñun def sacrifice retirer liste bi pour que sax moom non seulement mu mën a euh, respecter sa parole bi nga xam ne nii engagé woon na ko foofu noonu ci ay nawleem mais aussi ñu xool li nga xam ne mooy intérêt askan bi aujourd'hui mën a taxaw maintenant dafa am ay lu ñu mën a regretter nag par rapport ak démb dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci loolu ci nga xam ne nii xew na ay xew yoo xam ne yëg nañ ko mais ñun daal def nañ ko euh, d'une façon républicain la ñu démarrer ak suñu campagne dinañ ko gën a gën a yaatal par rapport euh, ak ouverture bi euh, campagne bi ngeen ñu gis ne def ngeen seen choix dem ki nga fi nga xamante ni moo di Thiès région de Thiès def ay caravane pourquoi ce choix d'abord

Dakar daanaka mokk na ba pare on va dire. je dirais ah je bon? dirais oui je ne dirais pas que c'est une formalité. d'accord mais Ndakaaru on sait que depuis que Pastef participe aux élections ay scores yu baax la ñuy am Dakar te on a une forte identité à la tête de liste Dakar muy Abass Fall et que Dakar est quasiment acquis à Pastef li ci des nag mooy féddali kóllëre gi c'est pour ça que président Ousmane Sonko génn Ndakaaru pour commencer campagne bi. à Thiès et nous laisser le champ libre Dakar. noonu lañ ko tàmbalee bi pa incha wax nga ko euh, ci loolu loolee sax la ñëw. Hmm. Euh, ci li nga xamante ni moom moo xew ci suñu thème bi lañuy ñuy dooree. muy euh, altercation yi am ci diggante Abass Fall ak waa kër baax Barthélémy Dias ci li ñu wax loo xamante ni tamit ay kàddu la yu jib ni nga ko waxee sànq Abass Fall yëkkati ay kàddu yoo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu quand Euh, par rapport ak li nga xamante ni moom moo am tey jii hmm. leader boobu noonu ngeen di wax bu fekkee leader boobu dem na ba euh, moom mu taxaw di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni kàddu yu violon la hmm. euh, tey jii déjà en tant que jeune ñi te di ko topp lan la ko mën a yàqal ci lu baree bari surtout nag nga xamante ni ñu ngi dagaan baatu askan bi question bi nga ma posé daf ma neex parce que je l'ai vécu j'étais là-bas dama ko dund ci caravane bi laa bokkoon sama oto soriwul woon oto Abass. Mhm. tout au long de la caravane ni ñuy duggee Baobab ba nit ñi génn dugg cité kër góor gi di dem Sacré-Cœur foofu lañ ñu attaqué man biñ ñu attaqué fekk na man j'avais contourné jël ay raccourcis pour jiitu dem ci siège u Sicap Liberté parce que Sicap Liberté man mooy sama fief donc siège u Abdourahmane Diouf moom qui a investi sur la liste donc dama demoon foofu pour déposer ay alliés yoo xam ne dañ noon dañu bëgg ñibbi donc il fallait foofu lañ ma woowee ne ma élément Barti attaqué nañ ñu ba ma ñëwaatee dama ñëw pour jël si ay blessé donc ça veut dire que caravane Abbas Fall dañ ko attaqué c'est ça le premier fait. D'accord. on parle de fait nit ki nag bu ñu attaqué sa njaboot sur le coup des émotions sur le coup eh, on est tous faits de cher et de de sang. am na yenn yoo xam ne bu xewee sur le champ dans le feu de l'action on a une réaction il a réagi à chaud. et effectivement boo gisee ne ay ndaw nga àndal ñu yor seen doole toll seen digg ndënd yow nga sensibiliser leen tout au long de la pré-campagne pré-campagne nga topp leen naan leen sama gars yi pas de violence pas de violence ku ñu tooñ nañ bàyyi mu sedd ku ñu tooñ ngeen nañ bàyyi mu sedd di préparer nit ñi en leur disant bu ñu kenn fekk ci ay xeex nga ñëw jouru campagne jour ouverture campagne nga ànd ak sa njaboot di sillonner Ndakaaru ñu song leen ba gaañ ci man démb j'ai dénombré personnellement sept personnes ñoo xam ne dañ leen gaañ sept Abbas il n'a pas pu supporter ça sur le champ surtout que am na ci ñu bëri ñoo xam ne ils étaient en sang sous ses yeux on réagit mais dañuy waxaat man. mais fi ñuy réagir am na ñoo xamante ne euh, bokk nañ ci moom ñu ngi naan ko waroo wax lii. maanaam ñu ngi koy dalal même si mais il continue à dire j'assume j'assume gis nga gis nga heureusement yow mi ci sa bopp nee nga Abbas bu muy wax am na ñu ne ci watam naan ko waroo wax waroo wax di ko di ko dalal donc justement c'est ça c'est assez symptomatique de Pastef cest dire que nit ki buy réagir sax am na ñu ne ci entourage am di ko wax pour dire que tu n'as pas le droit de faire ça de la preuve tey dafa yeewu qu'est-ce que Abbas Fall a fait il merci beaucoup et ça c'est c'est un acte de grandeur tey dafa yeewu def vidéo def vidéo pour dire que démb lii xewoon nii ak nii la fa demee il a réagi sous le coup de l'émotion et que c'était le premier jour de la campagne il y avait ah. trop de sang sous ses yeux et c'est pas quelque chose d'anodin pour man aujourd'hui li ñuy retenir c'est pas parole yi mu wax instant yi mu nekkee sous la colère li ñuy retenir plutôt c'est l'acte de grandeur bi mu def le lendemain def vidéo excusez wu def son mea culpa pour dire que lii xëy na réaction la à chaud mais que di woote à l' apaisement. d' ça la c' ça qu' faut retenir. d' accord apaisement bi mu woote. d' accord jàngat bi nga am par rapport li xew déjà premier jour premier altercation. Euh, nga jàpp ne aussi tamit amul ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay leader amul nenn noo xamante ni war nañ ko mën a taxawee ci seeni discours pour que ndaw ñu tamit xam ne